parce que bu ñu fàttee excuse-moi. voilà donc je disais que non pas du tout ce n'est pas rétropédaler. Mhm. c'est respecter euh, lenn ci ay engagements yi nga xamante ne moom la ñu euh, waxoon sénégalais yi bu ñu fàtte ne lu jëm ci wàllu justice euh, Pape Ousmane loolu du dossier Bassirou Diomaye fay kese. loolu dossier askan wi la askan wi à un certain moment danoo demoon ba mu commencé semer benn désamour dëgg-dëgg ci diggante askanu Sénégal ak justice am nit ñi dañoo demoon ba wóolootunu Euh, li nga xamante ne moom mooy li dox ci diggante askanu Sénégal ak justice su réew mi ñoom ils en ont payé les pots cassés malheureusement le président Diomaye est une parfaite illustration parce que moom itam. Mhm. ñu bëri jàpp nañ ne ci wàllu injustice la ñu ko tëjee euh, ci weeru koor xëy na mu génn peut-être nekk aujourd'hui président de la République il mën na nekk figure d'héros pour ñenn ñi mais dans ce combat là il y a eu beaucoup d'injustice yoo xamante ne daf cee am dañoo ci dëkk bi dafa am politique de euh, deux poids deux mesures dafa am ñoo xamante ne daal justice bi dañ fay nekk duñu leen daal dara du leen jot am ñeneen ñoo xamante ne soxlawul sax nag ñu ubbi seenub gémmiñ as tuut ñu jàppale tëj euh, gis nañu fii itam wax dëgg yàlla ne justice bi dem na ba à un certain moment on se demandait qui est magistrat qui est procureur et qui fait quoi dans ce pays tout simplement parce que c'est pouvoir yëpp dañoo mujjee jaxasoo dañu ne c'est impératif que dans ce pays que exécutif bi euh, am fu mu war a yam mm. judiciaire bi jël wàllam ba mu mat sëkk Euh, ci loolu nag dans cette démarche là on a besoin ou on a plus envie qu'on ait un président qui est tellement fort que bëgg-bëggam dafay méngoo sax à la ak li nga xamante ne moom mooy soxlaam ci waxtu bi mu ko soxlawee. Mm. mooy ne aujourd'hui ku mel ni un Pape Ousmane dérange mais président dem toog fay jël décision ba ko neex jaarale ko ci procureur mu def lu ko saf procureur boobu itam ay prérogatives am dafa am fu mu war a yam c'est-à-dire que chaque chose doit à sa place.

un séjour mhm. carcéral de plus de deux mois mhm. on pense à elle d'ailleurs en lui faisant un clin d'œil mhm. durant le régime de président c'est justement ci waxtu boobu la sénégalais yi gën a sentir ne réew mi kon boo farul ak buur saa yu la neexee mën na nga baal ma dama la wax ku ma ma dëkk bi comme Lido xam nga Lido jàpp nañ tëj <laughs> jàpp rek sax non dëgg loolu la ñëpp di c'est-à-dire que képp koo xamante ne amoon nga benn engagement ci réew mi de toute façon say mbokk ak say famille ñëpp pare woon nañu à ce que lépp mën naa dal on a vu cette justice là mais c'est-à-dire agir d'une certaine manière ba nga xam ne askan wi wooloo wóolootuñu justice réew mi kon na bu ñu toogee ne dañ koy ndëppal boole ci askan wi loolee nañu xam ne besoin la boo xam ne danoo soxla non seulement ñu renforcer équipe yi parce que les longues détentions aussi on en parle ñi nga xam ne dañuy nekk ci kaso yi pendant lu yàgg bu ñu lay bàyyi sa fekk ne yow purgé nga sa peine ba noppi mm-hmm. parce que déficit dafa am ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ni ñu war a recruter ak ci liggéey bi ni mu war a doxee mais man li ma ëppal solo mm. mooy ne damaa bëgg que cette justice là soit là pour tout le monde qu'il y ait une justice pour tout le monde mm-hmm. qu'il n'y ait pas d'une justice pour Jean et une justice pour Paul mm. cest a de nga neexal 300000 ay policiers ñooñu ñu recalé yow nag dans tout ça daf ci bëri ci ñoo xamante ne boo féeteeg nguur gi baa nga jege nguur gi. Mm. baa nga nekk xaritu nguur gi. wala yow ci sa jëm bi bopp nga nekk nijaayu nguur gi baa goro nguur gi lu la neex ngay def ci réew mi dara du la ci fekk boo bokkee ca parti politique ba am nga droit toog ci plateau wax lu la saf dara du la ci fekk. mais pourtant bu keneen toogee ci plateau bi. ubbi yim mhm. ñu ku mel ni Pape Assane Seck ñu ne ko ah, attention outrage article quatre-vingt bi nekk di plané ci bopp nit ñi. Ah. cet article là il va falloir ko ñu redéfinir ko xool bu baax tamit. Mhm. contour loi boobu ak contour article boobu lan ah. nag lan la parce que l' article quatre-vingt beaucoup on a on a subi des conséquences yoo xamante ne ba léegi il faut qu'on en parle donc crois-moi bu fekkente ne am na ku feebar ci réew mi. justice moo jàngoro joo xamante ne c'est-à-dire kooku dañ ko war a diagnostiquer de fond en comble au-delà de ces assises j'attends aussi que les conclusions soient appliquées et j'attends pas seulement parce que c'est le président Bassirou Diomaye Faye mais ak chef d'État bu mu fi nekk man je rêve d'un Sénégal boo xamante ne président de la République du am yenn doole yi ak yenn prérogatives yi def lu ko neex saa yu ko neexee te dara du ko parce que le président Sall on et avec beaucoup d'excès ci li nga xamante ne moom moo xewoon ci réew mi on ne veut pas que ça soit ce président là ou les présidents à venir et les mêmes forces appareils yi nga xamante ne noonu la koy mën a téye mu mën a noot askanam saa yu ko neexee jaarale ko ci justice ci loo xamante ne doomu aadama du ci mën dara pour man ces assises doivent servir vraiment à clôturer tout ça et à faire euh, effacer carrément tout ce qui est inégalité ah, dans ce pays ngoone li doon ju ñu sànq ci kaaw Bah ci lañ ko interpellé Guy Marius du ci tontu waaye li mu wax mooy mën nañoo yegg ci dépénaliser yenn délits yi mu tudd diffamation injure oui est-ce que war nañoo yegg sànq euh, mam yi tamit mi ngi wax naan même ba ci article quatre-vingt wala nañ ko xoolaat ndax jàppoo ne dina doon buntu aussi pour que ñi incarné suñu institution lu ñu neex ñu yëkkati teg ko comme ni ñu koy nekk di dundee ci espace public bi bu ñu yeggee ci dépénaliser délits yooyu ñu jàpp ni nekkatul peut-être à la mode boole ko conseil supérieur de la magistrature balaa ñu yegg si loolu damay féliciter président de la république pour discours bi nga xam ne yëkkati na ko foofu ci jam ñaajo loolu lañ doon xaar ci moom. Hmm. li ñu wax ci justice nag li ñu ci war a defaraat boo gisee assises yi am solo bien que def nañ ko defaat ko te booy xool lañ ca war a euh, tënk yëpp boo xoolee waxtaan nañ ko ci at yi ñu passé hmm. bien que waxtaan bi mu jëwul am solo parce que lañ ca jëlee peut-être ne demul ci askan bi li ma ci gis euh, Passeman gis naa ci ñu bari nag ñu ngi naan nekkul woon assise dafa nekkoon assise u euh, waa détenu Pastef ñu bari loolu la ñu wax ñi gedd ñu bari itam ñoo xam ne demuñu peut-être que loolu la wax bu ñu nee la justice est rendue au nom du peuple foog naa peuple dañ cee am solo. Hmm. dañu war a wax parce que ñoom ñoo xam justice ñoom ñooy dem ci justice ñoom la ñuy jàpp tey bu ñu defee assise daal di invité ay anciens détenus wala anciens détenus yoo xam ne dañoo def kaso kan moo gën a mën a wax ci justice ku dul ñooñu parce que société civile mu ngi fa ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci justice ay juges ñu ngi fa. moom président de la république mu ngi fa yeneen service yoo xam ne dañ ko waroon a rendre compte moom mu ñëw fekkee ñu ngi fa kon foofu waxtaan bi yaakaar naa du ñu am ma yóbbul la wala lii moo fa am wala ñuy dem di troquer ay wax ne lii la ñu wax fekk waxuñu loolu parce que ñëpp fekkee nañu ñëpp déglu nañu fii la gis Sénégal ay nit yoo xam ne dañuy exilé xam la moo leen ko teg justice ay nit yoo xam ne dañoo dee justice moo leen ko teg ñenee ñu bëgg leen jàpp ñuy daw ba tey mënuñoo ñëw am ñoo xam dee nañu géej gi ndax justice am ñu fi am ay 10 retours de parquet justice bi moo leen ko teg ay nit yu ñu boole yoo xam ne kenn seetu la kenn waxu la dara dañ la boole. Mm-hmm. surtout dem ci nit ñu ñëw jël la jàpp la léegi yow mën a wax ci justice. kan moo gën a mën a subir lu metti loolu te yow nga ne yow doo wax ci bu ñu wax assise justice yow doo ci bokk soit da ngay wax li nga xam ne moom nga dundu soit nga wax loo xam nit moom la dund. Mm-hmm. justice lu mu yàq ci dernière année yii bu ñu defoon assise sax damay yàpp ne duñu ñu nit bien assise yàgg na am comme ni ma la ko waxee. Mm-hmm. yàgg nañu tamit di waxtaan loo xam ne waxtaan bi du mujjee fenn. parce que munoo woo ay kilifa woo ay nit dajale leen ci benn salle suba ba ngoon ñuy wax def ay commission dem beneen bés def restitution la ñu joxe yépp nga jël ko def ko ci poubelle bi kon damay jàpp ne loolu du soxlawul ñu koy wax nan ay assises. Mm-hmm. comme que nag tey dem nañu ba waxtaan. ñi nga xam ne ñoom ñoo subir le conséquence ñu ci bari ñu ngi fa woon. wax nañu déglu nañ leen. Mm-hmm. léegi xam nga li des mooy lan ñu daal di koy jëfee. d'accord bu ñu wax indépendance de la justice ñoom ci ñoom waa justice ñoom ñu nekk seen biir ñoom ñoo ko yàgg di ko jooy. Mm-hmm. kii mi ngi wax léegi lu jëm ci pouvoir bi nga xam ne parquet am na ko man dama yàgg wax ne pouvoir parquet dañ ko war a wàññi. xam nga lu tax mandat de dépôt systématique yi. Mm-hmm. salaamaaleykum maaleykum salaam parquet toog woolu la nga ñëw wuyu ñu mandat de dépôt yóbbu yóbbu la. Mm-hmm. longue détention yi ñaata nit ñoo nekk ci kaso yi. waxuma sax détenu politique yi nga xam ne ñi ñu ci bari peut-être que génn nañu mais am na ci ñeneen ñoo xam ne ñu ngi souffrir ci kaso bi. waxuma daal ci seen dignité ci nga feebar mu noo faju ci ñoo xam ne seen ay kayit dafa réer ci tribunaux yi xamatuñu ban dossier ak ban dossier lañu war a lañu war a lañu war a lañu war a amee léegi yow sa dossier bu réeree mhm. li na doon toppee mhm. kenn gisatul kayit gi fan nañ lay jugé nga téye nit pendant 10 ans wala nga téye nit pendant 5 ans mu xëy nga nga ba fooy di ñu téem tàqale ko ak njabootam mu metti ci moom nga xëy suba teel ne ko génnal defoo dara Pape Modou sekk mi ngi doon wax ay forces spéciales mais loolu léegi ay dignité dignité nit ki la ñaata nit lañ fi jàpp fii ci loo xam ne ñoo xam ne xamuñu kaso mosuñu gis sax police am na ñoo xam ne xola pour ñu am carte sax dañuy ragal dem police. Mm-hmm. tey ñu jàpp leen. tëj leen defal leen ay revue de titre yoo xam ne ku la gis bu la déggee bu amul xel day daw ndax danaan bànni nga criminel nga ñu jékki-jékki bàyyi leen la demoon sa der yàqu léegi kenn la kenn la dédommagé mais hmm. Amidia luñ ko fi waxul jigéen bu liggéey wàcc ñëw jël ko anam bi ñu ko jëlee yóbbu ko yaayam topp ci mu dem hmm. mais loolu rek boobu traumatisme ñu dem yóbbu la waxuma la sax nuñ la téye mais garde à yi moo njëkk metti nabu buñ la ngay dem di ñëw doo xam ci loo nekk ñu lay retour de parquet loo xamagoo loo def hmm. ñu jékki-jékki téye la fi ngay tëdd baaxul saw yi nii la lay toppee. loolu loola kaaf ngay nga jàkkaarloo kaña yi ak lépp li oustaz Assane Seck doon nettali fii keroog. mais li mu wax na loolu am na lu gën a pire loo xam ne dañoo nekk ay góor mënuñu ko wax. léegi nit yi nga xam ne jàpp nañ leen tey jii ci ay jeunes jàpp leen dóor leen gaañ leen am ñoo xam ne yàq nañu seen ay awra ñooñ kan moo leen di fayaat. léegi ñu ne ay justice kenn ko wax kenn ko kenn ko waxtaane léegi ñu ne ñi ñi ñu woo pour ñu waxtaane ci li nga xam ne moom mooy assise ay ay ay kiiwu Pastef la mais bien évidemment dañoo war a woo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ay détenus politique wala ñu nekkoon Pastef xam lu tax mhm. lépp lu metti justice booy xool ñoom lañ ko tegoon ci Sénégal fii mhm. te ñëpp fekk nañ ci seen bët ba ñuy def ay revue d'étude naan ay force spéciale ay mission commando ay cocktail molotov ay café Touba fii lañ toogoon kenn waxu ci mhm. tey ñu invité leen ci benn assise boo xam dañu war a waxtaanee justice parce que ñoom ñoom la ñu teg justice ñii ñoo fi reetaan ñu jàpp leen ñii ñoo fi benn ay poste ñu jàpp leen ñii ñoo fi jàpp ñii la ñu def ñu bëggoon leen jàpp ñu gàddaay léegi ñu ne ñooñu ñoom war ñoo toog ci ay assise ku bëgg a ma ne voilà ñu kii mi ngi wax léegi ñi dañoo goy rek toog doon xaar seen bës ndax ku nekk mënoon nga wax ne su ma waxee ba dem suñu ma dóorul suñu ma gaañu gaañulee kaso laa jëm te kaso nag wax dëgg yàlla kaso kese la da fay dugg da ngay génnaat ak dignité am na ñoo mm-hmm. xam ne bu ñu duggee kaso bu ñu génnee ci jamono ji ñu mujjee génn mm-hmm. dañuy marché ko gis ay détenu politique yu dugg kaso génn ñu xaar leen ci buntu bi di leen tàccu di leen acclamer di leen wax ni di leen di leen jaajëfal ba ñu dem ñibbi seen kër kon ñooñu bu mm-hmm. leen woowu ci assise ku ñu woo ci assise loo fay wax ki subir kooku mën a wax d'accord kon bu ñu defee assise ku mën a dem wax ca jàmm wax luy jëmale Sénégal kanam nga wax ko soo ko nga maandu te xam ne boo fa demee gàcce nga fay am te mm-hmm. gàcce bu gudd nag bu gàtt ko gën. d' accord jërëjëf euh, Ngoné Pansement maa ngi ñëwaat ci yow léegi comme ça nga mën a yeggali ak euh, Baye Assane euh, Baye Assane salaamaaleykum wa rahmatulah.